asalaamualeykum wa rahmatullahi wa bokk yi nu fas yéenaa ànd ak ci téere sëriñ Souhaïbou Mbacké bii mu tuddee Qurratul Ayn nu toll ci bunt bi jëm ci nawaafil yi rawatina naafilay weeru koor nu fas yéenaa ànd ak guddik ñaareel gi sëriñ bu Mbacké radiyallahu anhu dafa wax ne ñaareelu guddi ga ku ca julli juróom benni rakka bu ci ne faatiya ak inna aataynaaka fukki yoon ñaareelu guddi ga ku ca julli juróom benni rakka bu ci ne faatiya ak inna aataynaaka fukki yoon des na ko jegal bakaram yep bala mo joge fam ko don defe te des na ko bindal bay junni haj ak junni umra ak yolup ko saraxi junni dërëm mel na ni yit ko seti junni ñu wop ak ku gungé junni neew ak ku jang ab kamil. te des na ko bindal yitam tiyaaba ju ëpp jaamu yàlla ak juróom-ñaar fukki at wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa